jërëjëf sëriñ Touba salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi ziar mbokku taalibe yëpp di ziar suñu kilifa suñu yaakaar tey ak di Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di sant bu baax a baax ci jóg gii mu jóg ñëw fii ci Bruxelles gane si di wax mbokku taalibe yi conférence bi nga xam ku tedd gi bëggoon na amal démb ci ton hôtel comme que dafa xat